boo wootee ñu wuyu si la gërëmaate moo la war loolu laa bëgg a def woote nañ wuyu si ngeen ñëw góor jigéen mag ndaw ñëpp jógee nañ si tund yëpp pour ñëw wuyu si ñu tey li ñuy wax tey mooy journée internationale de lutte contre Nations Unies bés bi ñu signé woon convention des Nations Unies muy le 9 décembre 2003 dafa jàpp ne si lañ war a célébrer journée internationale de lutte contre moy bes bi ñuy xeex guerre ci àddina bi léegi nag ñu wax nag xalaat nañ ne benn fan doyul ñu jàll ne nañ def 15 heures bi moy juróomi yoon ñu di ko def donc fukki fan ak juróom yi yëpp ñu ngi wor tund yi di wax ci rajo yi di inviter journaliste yi di invité société civile élèves yi góor ñi jigéen ñi pour war leen li guerre di yàq ci réew mi loolu moo waral loolu tey jii ñu ngi gërëm nag autorité coutumière

kon nag encore une fois ñu ngi leen di sant di leen yaakaar ne gannaaw Ndiob Faye dina am ñeneen ñu ñëw bëgg a liggéey ak Ofnac la bu yi dinañ leen yaatal bu baax bu ñu leen tegee si condition yi ñuy liggéeyee ak ñoom ñun ñëpp ñoo bokk xeex yàlla nañu yàlla mooy ndam sa xeex.